képp ku caabi féete ginnaaw rek ma lay bëggee bu baax a baax di la ziar da jox sa wàccuwaay bu wér-wér te ñu ñëw fii jàmm gën seeti fi xale ginnaaw bi mu jugee dimanche si journée bu rëy daan daan bu rëy mu fas yéene mu wax wax bu rëy Vito nuyu naa la. waaw Idi maa lay fay waaw ginnaaw moo sant yàlla julli si leen di sant sama ñaari waajur di sant yaay di sant sama papa di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram mm. waaw di sant jàmbaari fi toog yëpp booy ñoom ñëpp di leen nuyu coori coori yëpp ñoom la quoi. dëgg la waaw waaw parce que sëñ Touba bu ñu déggee Vito rek ñii la ñii ñoo si jàpp waaw lépp lu war si man ñoom ñoo koy def waaw ñoom ñëpp su ma limee damay juum di leen sant ñoom ñëpp di leen gërëm waaw oma seen fay waaw di sant samay dëkkandool gars yi ñoom ñëpp di leen sant di sant waa Kokoy télé maam Diarra guy ga Fass Mbaaw waaw sam-sam 44 bàyyi ma fenn ñëpp di leen nuyu di leen sant ñoom ñëpp waaw yéen wax ni masa coono lamb ji ñoom ñëpp gis naa coono gi ñu ci daj waaw di leen masaw waaw koñ bi dérangement beeg yooyu yëpp waaw di xam ne xam rek bis bee ko waral bu jeexee rek jeex na mais maa leen di masaw ñoom ñëpp waaw. Vito nga nga jugee dinañ dem balaa ñu dem si diggante Garga da ngaa jugee si si diggante ñu ne Vito li indi si état baaxut wala poids bi mu indi baaxul ñu gis nga sa combat Garga ñu a beneen Vito. waaw maa ngi Ndoye vitamine kaay ñoo gisee noonu rek poids bi baax na. mais am rek laa mujj damaa dem ba si biir am ci ndog-ndog am ci taab taab taab boo xamante ne wallaay ko gisoon sax da nga naan bul bëre annulé làmb ji mm. mu dem ba làmb de deux semaines kontaagu ma kontaagu ma si làmb ji loolu moo ma sonal si combat boobu noon taab baa nekk nii. Mm. billaahi moo ma sonal combat boobu noonu contact bi dafa des entraînement bi des parce que instant boobu noonu mënu moon delloo avance xas naa ko lekk. Mm. mais taab bi dafa nekk taab boo xamante ne pour ma yëkkat pour ma daw yi problème xam nga rek ku xamul rek mooy tax mooy toog na baaxul. mais loolu moom moo ma sonaloon quoi laamu jooj noonu waaw mais géré naa ko sant yàlla quoi métti woon na te et tamit ku ma doon bëral tamit gars yi dañoo war a xam ne kooku tamit mbër la du mbër moo xamante ne tamit da ngay jàpp rek daan ko déedéet. Hmm. borom kattan la te ku ne gis na ni mu bëreeg man laamu jooju yombul si benn côté waaw wax dëgg yàlla. nga jugee sa diggante Ndoye Vitamine nga jël xale bi nga xam ne ileer gumba la xàmmeewul janj ak joor muy gaar ak gaar moom ñëpp ko fi bàyyi woon nga jël ko. Garo gaar moom sax signature bi wax na ko ne na ma avance bii nii moom daf may sant quoi. Mhm. Mourou Mbaye ne ko lu tax nga may sant lu tax may ngay sant Vito mi ne ko sama avance kuñ ko jox da koy delloo du ko lekk. avance am kuñ ko jox ko delloo. kuñ ko jox nee na yóbbu nañ ko si quatre mbër ñu delloo ko. ma ne ko nag nag boo ñëwee si man teeral man amul lu may ragal. waaw man nee naa man nee naa maa fi nekkal ngonk yi. yow yaa fi nekkal ngonk yi waaw. ki xam nga Garo gaar bi muy dugg fii si yow dafa am lu mu doon rectifier si. waaw gaaro gaar nee naa ko. dafay dugg première ko jox. waaw diggante moom Sidi jàmm gën. waaw mu ñëwaat deuxième défaite am c'est la même chose. ko jàmm gën waaw ko dugg nga jàmm gën. mais heure fi duggee rek sa gàcce la ciy fekk. Eh. signature wax naa ko ñaa dug nga fi am loo fi jëlee si kattan boo fi duggaatee boo déggatee mbaru jàmm gën sax da ngay daaw dootoo di lekk avance te xam naa ne moom fii lay jaare bu tee mbaru avance jàmm gën dina dugg Pikine wala parcelle waaye jàmm gën moom dootu fi duggati. waaw fi nga dootu ah, <laughs> na fi ñaari yoon lu ñu fi jëlee xëy na bis dina ñëw mu dugg fi mu neex. ah fi <laughs> fi duggaatee dina métti moom de gars yi mooy loolu de. ndax nee na bii daa juumoon rek ak tamit fi mu jàpp baaxul. fi mu jàpp fan. Ah, nee na fi mu jàpp nee na fi mu jàpp doon doo tànk fi mu jàpp baaxul. waaye yow kii tee sama ñaari ngeem man amu fu ma jàpp ngeen fi mu jàpp baaxul. nee na fi mu jàpp baaxul de. fi mu jàpp baaxul mooy lan sawa téye ngeem bu dëgg këcc. téye dugal boppam nag sama bopp féetee mu ma mu féetee suuf mu téye ba mu dëgër. Hmm. ma baaxum téye ba mu dëgër ma mbaar ko wér ko poids bi daa jaaxle rek daa xam ne bu defa toon noonu tamit coup yi moo ñëwul rek. da nga ëpp ba nga nga ko poids mel ni benn poids lourd boobu. xool li mu def rek xool li mu def ba njàppante ba mu ko wéeree sam poids rocc loxo bi rocc loxo bi. Hmm. coup bi dem bay ñëw mu jébbul mu xam ne coup bi ñëw du baax ah. ñu ne xaaral ma def demi daana sam bopp teel a libéré gars yi. balaa leen lu ci fekk kon kon su ma déggee sax coup bi la doon daw. parce que maam Serap Fall bu ko Touba Dakar fekkoon foofu <laughs> barki maam Serapha mbër mu am ndam neex ma de. non du loolu de. du hmm. caaxaan de làmb ji dama see liggéey damaa entraîné ba os damaa contact ba os parce que xam tax loolu damaa jël avance bi ñëpp ñu ne kii ma mën. man nag man nag loolu. état pompitaire nga indi état pompitaire état pomme de terre état pomme bi jeexee après maa ñu ñu jàdd <laughs> non buñ non tuuti rek nga xool buñ dalee buñ dalee xam ne maa mën a bëre waaw waaw idi <laughs> idi idi sa mbokk përi nee naa jeewata mi mi a ah, jeewata de waaw jeew jeew waxatal beneen ko doo wana lees bilaay nga jóge si si gaaro muy sa premier grand combat su ma juumul. waaw Vito fan jëm. il yow fi ma jëm yow xam nga ko. xaw ma ko de. waaw ma amoon licence. yaa yaa am licence. maa jaar nañ si rukk. dafa impressionné maa jaar nañ si <laughs> ma fi nga jëm de. waaw te am na li nga ma waxoon nag. <laughs> xaw ma fi ma waxoon. léegi waxal fi ma waxoon confirmé naa ko. <laughs> waxal fi nga nag yow laa déglu. déedéet. ah waaw mais man ñu ku fi ñëpp baax. ñu ne mooy ngonk bi. waaw boobu dem moo la freiné. waaw avance am ñëpp di ko daw. waaw daan naa ko. fi ma jëm xam nga ko. Ah, waa yow fi ma jëm xam nga ko laa la wax. Ah, bu moom soo xoolee ñi ko indi woon. waaw Tidiane Faye ko indi woon. Tidiane Faye ban. bu Tëngéej moo ko indi woon ay Ronaldinho. ak ay ay Modou Diakhaté ñoom ñoo ko indi woon ay Gamou Gueye ay Gamou Gueye indi woon. waaw Gamou Gueye na ñëw. donc Gamou Gueye na ñëw. ko fanaanam. Gamou Gueye yow yaa indi gaa yaa gamu gaaroo gaar Gamou Gueye. waaw conseil ko. waaw di actionné. ñëwal yow Gamou eh, Gueye. ñëwal jël ma xam nga Gamou Gueye. Gamou la ñëwal nga jël ma Gamou Gueye yow sa avance laa la wax su ma ko lekkee barki sañ Ba ma avance am moo ko lekkee dama neex trop Gamou Gueye na ñoo ñu bëri gaay de dafa am ñu demoon foora dog xaw laa lakkal ndib bu baax tax nga wax man géej naa lekk yàpp géej naa lekk yàpp de ah man dama yaakaar ne gars dañ laa dugal si pet yow géej naa lekk xam nga gën a gëj a lekk yàpp ah. ba ñuy gisante fora ma ak yow yow jur lekk yàpp loolu laa gëj a lekk yàpp ah, dama ànd sa woon noonu ngay wax dama sa woon noonu ngay wax. waaw xam nga yaa fi wax yàpp. dama xam ne yow soo toogee nga ne Gamou Gueye ki nga xam ne moo dàq dóor si làmb ji. waaw waaw waaw nga jël ko. waaw waaw. bilaay yow Idi yow xam nga Idi xam nga Idi xam nga jàmbaar yi Idi man sama yoon yombul. Idi man sama yoon sama morom bu fa jaar takk ban. waaw saa rek laa la wax ba léegi nii nii nii sax. problème combat da koo am ba léegi nii ku ko jël da ngay daw moom. non man li sa lenn dama ko xaw a si Vito maanaam moom xamewul janjak joor il est gumba yow kii ñi fi tere lañ jox pour lan loolu. maanaam man la maa fi nekkal ngonk yi. léegi nag ngonk yëpp pare naa si ngonk yi mënumaa bëri ngonk yëpp. ah dañ ma jox français yi. kon gàmmu koy français la. français la ma ko jox ñaar dërëm. waaw xam nga la nga ne gàmmu koy français la. ñu jaay ab lébu la saa fi la toog naan man aw aw ma ne ko jàmbaar da ngaa baax rek. man aw ak lébu ak lépp laa yamale ñoo la gën a nekk lébu fuuf. waaw bu dul gàmmu gay waaw bu dul gàmmu gay say morom ñu ngi ci làmb. man tëngeej gàmmu gay laa fa soxla. yaa dugg tëngeej a bu dul tëngeej. Ah, ñu gën tëngeej. a ah, génnal tëngeej waaw dañoo dox français fii nii. comme ñan waaw. comme ñan. waaw ñi ma war a bëreel rek. ñi nga war a bëreel ñi nga war a nga leen. waaw Bam Laxasaay xam na ñu may bëreel. kii du laaj kenn ki amul mbër bu muy laaj di yaa xam nga bëree baamu laaxaay dafa nii xam nga bëre woo bidon mooy bëre baax na. mais baamu laaxaay xam na adversaire yi. bamba si kar la fii. <laughs> baamu laaxaay nitu làmb la day dund làmb. gars yi du gars yi gars si si bi. parce que sëñ Bamba instant bii nii nii dafa jot idi billaahi wallaahi mu bëre gars yoo xam nga loolu. idi gars yi daa ko ñu ma mobilisé. daa ko ma mobilisé. fii bëre fi booy bëre grand combat barke sëñ Bamba. booy ñuy wax ni damay immobiliser man dañ ko mobiliser. di nga gaay fi ñu la dugal ñu ma ginnaaw. bébé jënd la dugal waaye Mathé ma ko. gaay ñu la dugal dugal kooku maa moom bébé jënd. non kooku maa moom laamu bu ñu simmee koo sax dugg si biir laamu sax gàcce dina ko non maa moom waaw kooku daa gàtt man nu ma bëri waaw kooku ci mu ne la non Mathieu moom soxla wu ma ko wax dëgg yàlla kooku soxla wu ma ko. Mathieu frère la boo yëpp. non soxla wu ma ko yow xoolal gaaroo gaar sax maa ngi ko daan sax ñëpp jëf commencement bi kenn xasuma mais ma ma wër maa ngi si biir géew ba ma ko daanee ku nekk na ma jekk yaa ko bu dool yaa ko bu dool xoolal loolu. kon fi mu ne ko moom si biir géew bi laa la wax waaw déggoo ma de waaw kay gàmmu gay na ñooñu bëree gàmmu gay mu ko indi maa moom làmb la gàmmu gay ñooñu bëree waaw sa avance bu ma ko gisee dama koy lekk dama koy lekk tëdd njaaxaan naa yi waaw yaa ko indi yaa ko conseil te Garo Gare yëpp xam ne ni mbër la yaa ko indi waaw ñooñu bëre yow Gamou Gueye maa lamb la lamb da ne ci tolof tolof gëj ngaa daan mbër. ah Gamou victoire la jugee. waaw yow da ngaa tax mbër français la te mënoo koo daan. jël Gamou Gueye victoire la jugee. waaw gëj naa waaw yow victoire boobu neexu ko jox victoire sax kontaan. ndam noo ko amee baax na. waaw ndam noo ko amee baax na mais ndam nag jël ba jë ku nga daan ba jaaxaan loolu dara gënu koo neex. yow sa diggante Sa Thiès nan la woon. waaw maa mu demee. <laughs> ah te daal. moom jox nañ ko ndam mu ñu ba may ñibbi ñoom ñoom tàcc ma ñëw ba fii xam ne loolu Vito ba pare moom. ndam noo ko ba pare moom mi ngi gëstuwaat bëgg a bëriwaat ak man. Eh. moom Sa Thiès. revanche. barke sëñ Bamba gëstuwaat bëgg a bëriwaat ak man ka nga xam ne kooku noonu. non la ngeen bëri Iba Mar moom. lim daj national la xaj. lim daj ci man waaw kooku noonu wax dëgg yàlla uu kooku moom na dem ma dem. <laughs> foofu loolu du dara de. foofu da ngeen xeex bëre. dañoo xeex bëre mënu si man ñaar dërëm. da ngeen a xeex da ngeen a bëre mënu si man tuus. barke sëriñ Bamba damaa dama koo bëri la ba may ba may tee di waaw kooku moom na jël yoonam ma jël sama yoon laante nañ. waaw ah moom mu ëpp ëpp ma doole si làmb ji mais maa daan ëpp ma doole si làmb ji mënumaa ñëpp jox ko fa ba dama koo jël pare ñëpp naa ma kii nga jël xamoo ko ki nga xamoo ko mais nag nañu waxante dëgg rek ku ma jël ñu ma kii la mën. kon kañ ngay jël sa morom. ah comme koo jël ñu ne kii moo mën waaw kon Vito kañ lay ku mu mën. Ah, nañ ma jox ngonk yi ne si kaw léegi ma bëri ak ñoom. kon da ngaa bàyyi ngonk yi suuf yëg ngonk yi si kaw. waaw léegi ngonk yi si kaw ñan la ñoom la rek ñu gaay ñu tudd mbëri rek déedéet. ay Kamou Gueye Thiatou da Fall ñooñu nañ ñëw. Kamou Gueye Thiatou Daouda Fall. Thiatou Daouda Fall Tafa na ñooñu nañ ñëw ñu bëree. ay Kaw Gourdin am na komba am na combat Thiatou Daouda Fall maa moom lamb la. Thiatou Daouda Fall bu nu maa rëcc palmarès nañu wax ne dëgg rek. xale la may xale barke Serigne Bamba. jaadu na jaadu na billaahi wallaahi maa moom làmb la. dafa jaadu. billaahi wallaahi. lan moo tax nga lan tax nga taxaw si Thiatou Daouda Fall. non damaa xam ne suñu bëree day neex. barke Serigne Touba Thiatou Daouda Fall moo ko amee làmb ju neex la maa moom day xeex ngay xeex day xeex may day bëre may bëre te moom bëreem dafa gaaw te man damaa soxla mbër muy bëre bëre bu gaaw soxla mbër muy yéex barki Sëriñ Bamba man mbër sax man damaa bëgg mbër muy bëre ba ñëpp ne man damaa bëgg ma koo xamante ne man ñi muy ànd sax dañ du waax moo tax nga dugg si biir kii nag naa te opéré naa leen gaaro gaar mbër la hmm. champion la mën na bëre ma ne bu baax nañ ma tam dëmm eh. te tam nañ ma waaw te tam nañ ma nañ ma joxaat keneen Thiat eh, Daouda Fall. Eh, kon dama bëgg Thiat Daouda Fall Thiat jox ma leen nañ ma tam dëmm. waaw ah waa bu ma joxatee Thiat Daouda Fall wala yeneen ngo ñoom ñu ma ci tudd ñoom ñu ma ko ma tamaat ñooxóor. Eh? eh après nag étape par étape may dem di dem. <laughs> bu yàggee étape par étape. bu yàggee. Ah. waaye CNG ñu naan teel sa ngeem nga dem toog joxatuñ la combat. ah loolu moom la ko wax kay loolu moom CNG du la ko wax ah, <laughs> mooy bidon nga dégg ginnaaw bi mu jugee si làmb jeeg léegi daw di ko sees nii fi mu toll nii ku ne mbër mu ndaw bi nga jugee si combat léegi ñi si jàppoon. waaw naa la nga sant ñooñu. waaw làmb ji ñu si jàppoon ku si mel ni Siteu. yàlla bi ne yàlla bi bi barke sëñ Bamba jaamu si naa taxawaay bi gis naa jàppale bi mais dama xaas waaw di ko ñaanal jàmm na ko nii la waaw boo amee say rak si biir gox yàlla jiital la da nga leen di gëstu quoi parce que moom la fi yàlla teg mu neex ñu mu naqari ñu mooy drapeau bi mooy président jàmm gën mbër yi waaw nii la quoi sa geste rafet na te di ñaan yàlla nga continuer ko jàmm rek nga ciy gis waaw boo amee say raq da ngeen gunge jàppale leen quoi ñu loolu lañ bëgg affaire yi gën a yaatu bëgg naa tamit bii laa mujj biir ñëwaat nga yóbbu ma stage ñëw open presse bi teew mais nga ma xaalis nag mais teew abi tamit da ciy baax quoi waaw di ko sant tamit di ko gërëm waaw di si gërëm di sant Pape Mbaye kii Pape Pape Gueye Pape Gueye di ko sant bu baax Pape Gueye jàppale na ma waaw jàppale na ma si combat bi si tous les plans jàppale na ma si lépp Pape Gueye di la sant di la gërëm gis naa taxawaay bi waaw di sant Abdou Samad Abdou Samad di ko sant jàppale na ma si combat bi waaw di sant Abdallah Paul waaw jàpp na si di sant LS Pro moo ma solal li ma sol nii ci open presse bi LS Pro moo ma ko solal. waaw jàpp na si les pro di la sant bu baax gis naa taxawaay bi waaw di sant Bakary Bakary tamit di sat yi moom ma defaral baas bee ngay gis fee Bakary di ko sant di ko gërëm waaw di sant tamit booy may àndal comme ni ma la waxoon rek man ñii laa am ñi ma sama lépp ba muy metti ñoom la billaay wallaay di leen sant ñoom ñëpp suma ma limee damay juuma waaw di leen sant ñoom waaw di sant Kader Baye di leen sant bu baax di sant Ousmane Mbodj man Mbodj maa koy sant mi ngi nii toog waaw kii mi ngi jugee ba Passy di sant waaw Kër Soose yëpp di sant Père Lamset. Passy bon Passy Mamoun Nderi wala Passy Sanc. waaw Ousse wax ban Ousse wax Passy bi nga jugee. di sant waaw. côté Ndiaphate. côté Ndiaphate dégg ñu wax Kër Soose. Kër Soose Kumba. côté Kumba. waaw yow Idi yow xam nga àll bi nu mbëri di ngemu nan ngay ngemu yow <laughs> waaw. ñoom ndekete journaliste yi njëkk am gàllaaj avant tout waaw bu am na feneen foo xamaan na nga wax ma ko ma dem waaw waaw ab la nag. kii boobu la kii ab pël la de. fa la kii dama am gàllaaj. kii séeréer la. moom dama am bu xees jafe na de. ma bëgg gàllaaj yow. man de da ngaa laal da ngaa laal gàllaaj mu tëdd. man daal pël laa pël Idi naka séeréer nga yow. yaa ma bu gala jaa la gara gara mu tëdd. di après sa dëkk naa fa ñëw waaw di sant perlam set waaw waa Kër Socé paa yeeg mère yeeg xale ye ñoom ñëpp bàyyi ma kenn gis naa nuñ sonne si làmb ji waaw di sant waa sam Samsam 44 waaw di sant waa Samsam kenkaayri ba fële waaw kenkaayri ba fële nu mu tuddati Juma sam ñoom deux pis jàmm gën ñëpp maa leen sant di sant Naar Naar Fall Naar Fall di ko sant bu baax Naar Fall gis naa sa taxawaay si làmb ji waaw li ngay mëbët yaa ko xam yàlla na ko suñu borom jox Naar Fall mi ngi def liggéey bu am solo si gox bi jagsaaw di la sant bu baax Naar Fall borom dekkil sa gox ah Vito waaw Naar Fall mooy borom dekkil sa gox waaw di sant waa Kokoya man Kokoya laa bu baax paay ak meer ak xale ak ñëpp bàyyi ma kenn waa Télimaam Jaara Téliba di leen sant bu baax di sant Abo waaw Robo di ko sant bu baax waaw di sant Abdallah Paul Abdallah di la sant. billaay walaay di sant borom bis bi borom laxasaay di sant waa Fora waaw Fora bàyyi ma kenn waaw di si jiital G bu Fora mi ngi nii toog borom Fora waaw kii mooy borom nag ak meew yi barki maam Serap Fall waaw waaw dama bëgg nga lim waa Fora waaw man su ma limee damay juum yow yaa jàpp ay ñoom Laay Pata Laay Pata maa ngi sant Laay Pata Laay Ndiaye Karbala léegi nag ñu si des nag yow ak ñoom Laay Pata sant ñoom laay pata comme nu nga ko waxee rek ay ñoom laay njaay gaa yëpp jàpp nañ si ay ñoom isma booy foofu ñoom ñëpp mu limee rek damay juum ñoom g gaa yëpp waaw ñoom ñaawel gaa yëpp jàmbaar yëpp jàpp nañ si waaw ñoom g ñoom Seydou ñoom Aliou ñoom ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm waaw pare sen combat tamit na si gaa yëpp jàpp ñoom ñëpp affaire bi tamit xam nga rek affaire bi léegi gox ak gox la quoi nekkatul affaire bi xam nga ay mooy loolu nii ñun ñëpp ñoo far foora ak fii lépp benn la te saawaay moom borom baax la xam nga waaw mooy loolu bari ko si mbartal la puus mu dem puusul mu dem kon nag na ko gaa yëpp teg loxo te na ko gaa yi jël nag bërëg moom waaw surtout loolu waaw gaa yi kaw dañ ko jël bërëg moom ndax dafa yegg si quoi waaw sëñ Fall Xalil borom bis baa ngi ne Bamba la xasaay ziar naa doom tur naka tey jàmm na ko waar Bamba jour bi ni nga mel ni nga mel tey bokkut ah dóor bi loolu jaru ma ko jar rek. bàq si Bamba dama am lu ma laaj. Bamba përie gi si biir stade bi rek. loolu ambiance la woon rek yaa ma gën a xam. Bamba daa përie loo xam ne temps boo la ak teg pono di përie. non doon ambiance rek doon fas dagg sama yaram rek mais du dara ak sëñ Touba ak bëgg rek. Ah. waa xam nga rek bis tamit gaan ñu bàyyi ñëpp tuddee loo ko gaan loo mën loo mënul yëpp war nga ko a def daal. te kii maag moom du ay làmb sax wala ay yii nii nii nii nii duñu doondoo yoroondoo màggandoo ba toll nii toll kon moom lépp lu mu war a nekk suba ngoon rek man war naa si mën a nekk daal parce que Seydina Muhammad ma bëgg na yenn jàmbaar yi ñu jël ko quoi laajuma quatre mbër laajuma cinq mbër ñetti mbër dong laay laaj ñetti mbër comme kan ak kan kase kase kase kan ak kan gaaw mu gëy eh na pare uh-huh. muy muy timis muy naaj booy bi dañëw ci kawam léegi léegi du yàgg dara barke Seydina Muhammad. moom Gamou Gueye. waaw Tapha Mbeur. ñaareel mi nelaw na nga yeewu. day ne Tapha Mbeur day nelaw. Tapha Mbeur mi nelaw laa na nga yeewu da ngay jaay rëy wax du jéem a jaay bëri wax ñoo la dàq wax bu nu waxee doo wax. Eh? bu nu jëfee doo jëf bu nu bëree doo bëree bu ñu xeexee doo xeex. Tapha Mbeur de la amel bor la mbër bu ñuy topp vidéo rek la ñuy topp. lu am lu mu la wax xanaa Tapha Mbeur amel na leen bor. déggoo ma la bor boobu dof bi da koy fay alkabu dof bi yow doo xippi. doo xool déggoo ma xanaa. caatu Daouda Fall tugne bi. caatu <laughs> Daouda Fall tugne bi laa wax tugne na ñëw. mu la tugne la grand combat. ñu jàpp noosee ko dañ koy noosee xam nga wax naa la loolu noonu ci Papa Sow. waaw caatu Daouda Fall laa soxla juddoo jàpp ko noosee ko. looloo waral man la at feet weer feet semaine feet weekend dañuy noos rey xar rey nag rey gileem raxaale ceeg mbote. te moto bu ñu rey bu neexee yàlla jaar Daouda Fall moo nga war a jox. Eh. te dañ ko war a oñoo kon lamb gi na ñëw taxaw ñu bëree ko. dañ koy lan dañ koy oñoo. déggoo ma xanaa. gars yi ragalu ñu leen doon dee. ñun ragalu ñu leen doon dee. <laughs> Eh, ñun gàmm nga lañ dëkk kokoyo lañ dëkk Télé Mame Diarra lañ dëkk fu ndox bi di taayee lañ dëkk. xam nga lu ma la waxoon nee naa la ñun si côté Ndaaye lañ dëkk. ma la am ndaa tëj ndaa taxut a ndaa ndax soo maree naan da ngay tànk si ndaa nga naan déggoo ma xanaa dégg-dégg su ñu la fekk bu baax Tapha Mbeur jëlal làmb ji barki Seydina Muhammad boo jëlee làmb ji booy bi jumloo la wel wel ñi nga doon bëreel ak kii bokkul de ah. kii yëq la ngaari Modou la nagu mag bi du yàq ngooñ la ilaaha kii moo ci bon ba kii dëmm la ci kii nooxor la ci déggoo ma xanaa barki sëñ Touba Mbacke du ma la wax sax yow kenn dàqu la jàng xam nga lépp du lan ma laa la du xëppi wala bu dee daa silmaxa nanu wax alcool alcool linet yi nga mu sol borom dëgg bàyyi bamba linet yi bamba xam naa gisul alal bamba ah, linet yi dama koy laal dafa fort <laughs> duma la ko bamba yaa ngi boo non dama belli <laughs> duma la ko dama jëntal dama jëntal si xale mais tamit c'est normal jàmm gan laa dëgg bu dëggee jàmm gan wala nga <laughs> sama noonu la nag. il est war ngaa xool boobu nag il est mignon. yaay Kër Socé. Kumbal Kawil Kawi Caan Lat Menge. du foofu. du Kawil foofu. mooy route Passy. Passy. waaw boo demee ba Kër Waly Ndiaye passé Ndiafat Kër Waly Ndiaye. Kër Waly Ndiaye dugg Jijak dem Kër Socé Kumba. yoon bi jëm Diagane. waaw avant yoon bu jëm jaagaan quoi moom ngay njëkk a jot avant jaagaan. moom nga njëkk a jot jaagaan bu waaw. benn yoon mi ngi diggante Passy ak Ndiaffate bu nekkee xam nga Ndiaffate. Vito am bés nga bàyyi lépp ñëw ngir moom. waaw combat ko laaj. waaw wala dafa am combat lu taxoon nga ñëw. waaw Vito ku jar a jàppale la parce que dafa am fu mu jógee ko am fi ñëw ak mu yegg si te ku am jom la parce que. bi mu jógee ci Sathiès 2 météo na lool. mu jóge foofu noonu. affronté ko ma jël ko yóbbu ko si àll bi ñu mbëkkanteeg champion yi foofu noonu si tournoi yi. côté boobu côté googu noonu. comme ay ñan dem fa dajeeg fa ay ñoom Biram Mbissine ay ñoom Toubacouta ñoom Ndiol Géant ñoom kii Boy Maroon ñoom Gane Seras. bu mbooloo bu sax xam-xam. waaw ñoom ñoom ñoom Simon Simon Ndiodior. Simon bu Ndiodior. yooyu la doon mbëkkante foofu. am fa final poids lourd. moo kan. moom ak euh, benn gaayan bu dekk côté Fatick di keroog moo fa daane gaja gaja mudee quoi. keroog moom vidéo moo daan gaja mudee. moo fa daane gaja mudee premier tour. te keroog champion yi foofu noonu gaja mudee mu fa nekkoon presque favori bi ñu doon coow foofu. juróom la njëkk a dugg arène maa ko fa yóbbu maanaam moom ak Seydou xam nga Seydou ñëw na fa ak kii suñuy wax suuri. loolu si ban dëkk la. Njaafat. biir Njaafat. Njaafat séeréer. Njaafat séeréer. dëkk dëkk Ndiaye dëkk Serigne Ndiaye Moussa Njaafat. dëkkam. te boobu mu door a dugg mbapat tournoi. dëgg la ñu jógee foofu ma yëwal ko Sandinkoli mu amoon fa nag. Sandinkoli comme fa finaalu Sandinkoli mu nga finaalu bi ne góor gi Saar. noo ba tey mi ngi Ili de. waaw mi ñëw am combat moom ak euh, gaañ bi. ndoy ndoy waaw. mu daane ko c'est la première fois may njor a ñëw fii bi ma jógee foofu ñëw aussi tamit dañ ma yebal ay dafa may sumay nijaay yi may yëbal ay sumay papa sumay maam waa kër yëpp may gërëm ñëpp di leen sant parce que ñoom yëpp ñoo ma may doole bi nii ba ma ñëw fekkeek bés bi mu am si ndam surtout ki ñuy wax Père Lancet champion la waaw ma jógee foofu noonu ñëwaat si deuxième lambam nii diggante ma gaaro gaar diggante ma gaaro gaar ma ñëw métti lool yàlla def ñu ma ñu fi ndam mais lépp yàlla la quoi mais dañ koy ñaanal yàlla parce que ku neex a jàpp la nangu na entraînement na nit am na yar am na tegin. parce que soo bi ma ñëwee fii nii koñ bi fii koo wax day ma ne kii ku neex a jàpp la parce que am yar dafa am yëg-yëg si nit quoi te doomi aadama loolu rek mooy doomi aadama te ay ay kilifaam gërëm nañ ko te nit sa ndeeg sa baay bu la gërëmee des yëpp daanaka dolliwaat la rek. dëgg la baay mooy lépp lépp la mun ñu jàppal te nit deful la sa ndeeg sa baay ak say dëkkandoor parce que am nii vraiment. am na ay nit de parce que tey gannaaw yàlla yonent bi deux mois yi wooye ñu ngi toog fii di fanaan ba borset loolu lu ko mënal si ay nit bëriwul. dëgg la kon man li ma koy yokk mooy nag gën a góorgóorlu si ay ñii nga xam nekk si ginnaawam. ay xaritam du sonn guddi ak bëccëg ay xaritam du sonn guddi ak bëccëg tey ba muy métti ñoom la woon bu dee ba neex tey amatul koo xamante ne bañ na ko moom su ma xam na loolu. Mhm. fu ne lay ñu di jógee ko mais nag na na xippi bëtam xool ñu mu doon deflante dëmb avant tey. dëgg la ñu war na bay ginnaaw ay nit ñi baax la am vraiment ay nit ñi bëgg nit ñu ko bëgg jaraleen lu nekk bay seen ité bay seen lépp deux mois loolu yombul doomi aadama kon bi mbir bi na bu mu jàpp ne moom keese la na ko yaatal mu ngi yaatal na mii nag gën a góorgóorlu dëgg la waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm secteur njaafaat fi ma jógee ko ñoom yëpp maa leen gërëm li leen ñan yàlla li nay may victoire bi ñu am nii quoi di sant yàlla. Vito dégg nga grand bi li mu wax waaw. comme li ñu cëraloon si waxtu jeex na. kàddu gu mujj na si gannaaw bi wax. waaw kii mooy loolu kii suma lépp la wax dëgg yàlla day bàyyi léppam bàyyi njabootam barke sëñ ba ñëw fii ba ma xamante ne moom ba léegi rëccu ma ko waaw yokk na ma lu bari wax dëgg yàlla ba ma njëkk a yóbbu tournant àll ba ma bëre waaw ba ba léegi nag waaw fu mu dégg tournant rek. daf may woo ma bàyyi sama lépp tax samay daal dem fekk ji ko ñu dem wàll ji dem bëre ji. waaw te heure bu ñu demee tournoi yàlla bu ñuy suturaal. waaw waaw buñ final wul ñu ngi àgg ñu ngi àgg demi final wax dëgg yàlla. mosu ñoo dem toogee premier tour. ba ma dalee foofu te tournoi ma fa bëre na tournoi ma bëre damay sori su ma ko jëlul damay dem demi final wala même final. wax dëgg yàlla. te bu may bëre ji dëkk dëkkam ñëpp may top dañuy taal seen jakarta ñu takk seen i fas. ñoom ñëpp ñëw si tournant yi waaw kon mun naa ne wax dëgg yàlla ba ma xamante ba ma xamante moom ba léegi ci ma ko yokk na ma lu bari si làmb waa di ko sant di ko gërëm di sant waa këram di sant papam ak yaayam waaw di leen sant ñoom ñëpp waaw parce que ñoom it kër googu boo fa demee wax dëgg yàlla lépp jàmm sama dara du génn lu ma soxla su ba ngoon yaayam ak papam moo ko koy lijjanti jox ma ko waaw di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram waaw ak jabaram Fatma di ko santaat bu baax di leen ñoom ñëpp waaw di sant tamit waa Casamance sama dëkk Kampisa usine coton Jankankunda ñoom ñëpp Kolda usine coton sama yaay Kadi Jaabi moom di ko sant waa Jankankunda Moussa Jambang ak waa Kampisa sama papa Kamadou Jaabi ñoom ñëpp maa leen sant di leen gërëm waaw billaahi di sant gars yi yëpp ñu may jàppale ñëpp di leen sant idi barke sëñ Touba Mbacke sant nga ñëpp gërëm nga ñëpp gërëm naa ñëpp di sant waa Maroc Anta Maane ak Maroc waaw moom it day gis samay interview du ma ko sant mu mer trop Anta maa ngi lay sant di la gërëm nee naa dinaa la sant ba nga découragé yéen waa sant naa leen gërëm naa leen waaw am leen jàmm. salaam waaw gën a xam yéen waa Maroc ah. waa waa àll bi sax maa leen sant. waaw di bëggewaat ñëpp rek di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay di bëggee ne waa Gaage Mody Gaage Serif Gaage Bokar ñoom di mbin farba maa ngi bëggee tund googu yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu Khalil benn émission ak beneen daan ak Khalil tout est possible. <laughs>